Elhadji Ousseynou Ndiaye dalee nga rek lépp rek jëm na nga ko ci Sénégal rapport bi nga nañu ko génn ci Sénégal di ci Sénégal kay lépp rek jëm na ci corruption yu mel ma nga ci bi di bi ñu ji kay mel na ni jaxase na Sénégal ndax nga rek Ousmane Sonko ma ngay rek Macky Sall kay gannaaw rapport nga rek nañu ko di kay Sénégal depuis 2016 ba taxaw ci corruption la a ñaay ci réewum Sénégal mi nga ca zone rouge ba yéene kaay bi di ñu xamal nag Ousmane Sonko ko di xam ne rek dañu koo a ji bu yàqoo yaxeet du kenn ku dul njiite premier Macky bu fekkee nag am na loo xam ne wàllum ger laax bu fekkoon ne maanaam am na bàyyi ko a fu nekk nee ma waa ñoo lànk ñoo ba ñoom kay lànk ne nag maanaam courant googee dinañu ko wàññi waaye nag ñaxtu googee googale pression ba léegi rek ñu teg ko ci ndodd njiitu réew mi waa seen du ngeen dem bàyyi ma jamono ji njàngale mi jamono ji ma ngay toj laa wax di xar Moustapha Diakhaté génn daal jamono ji amul génn ak yoonal goo xam ne daanaka am na ci laas yéene kaay duñu xamal ne ak lu ma ne xew daal waa CSN ñoom nañu ko waxee woon laax seen raxdu boobee nga xam ne moom la ñu fas amal yéene kaay bi dañu xamal ne amal nañu ko waaye nag kàddu yi nga xam ne rek Mamadou Talla yëkkati na ko muy jëwriñ ji nga xam ne rek moom la ñu lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu njàngale kat yi lañ leen di ñaan ñu régler laa la wax te ànd ak ak dal bu ko defee li nga xam ne rek mooy jafe-jafe yi nga xam ne rek am na ci njàng mi ñu daal di koy saafara waaye nii ñu ko bëggee daal maanaam bëgg koo def jooni jooni rapidement nu mu gën a gaayo loolu ta nekk laax nañu ànd ak ak dal mamadou tala mooy yëkkati kàddu yu mel ca jamono jooju keneen koo xam ne yëkkati nay kàddu si xame bamba moom mi nga xam ne rek moo jiite coppewal ci lépp loo xam ne rek jëm na ci campagne njaayam gerte gi kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko dafa xam ne nag jamono ci huilier yi nga xam ne rek ñoo nekk ci réewum sénégal ñi ngi bëgg a deelaax ñoom huilier yi ba tax na nag bëri na ay seen liggéeykat yoo xam ne rek dàq nañu leen maanaam daal tàqali ko na ñoom ñoom yéen nag ñëwoon ci réewum Sénégal ñenn ñu nekkee ca Ndar Richard Toll yéen i kaay gi duñu xamal njiitu réew mi ñaari région yi nga xam ne rek bëgg na leen a teg loxo maanaam daal suqal leen ci wàllum koom-koom Matam ak Podor yéen i kaay gi duñu xamal njiitu réew mi Macky Sall kay jamono ji doogatul ci loolee ngir daal lépp loo xam ne rek jëm na ci ñaari dëkk a ko yéene kaay leneen loo xam ne yokk na ci réewum Sénégal muy cong yi nga xam ne rek day am yéene kaay ga duñu xam ne jamono ji nag Mbàkke ba Tuubaa ba Ndindi cong ya ma fay gën a wullee ñaay waaye nag jamono ji kon mbir ya ngay gën di yokku ca jamono joojee yéene kaay bi di vox populi du nettali mbir mu doy waar di ñu xamal nag ma nga xewee ca quartier Mbour ba nga xam ne rek moo nekkee ca benn xaleb taalibe boo xam boo xam ne ay Imagine sem ninguém. Coragem sem ninguém.